sëñ bi maa ngi lay siyaare. salaamaaleykum ñoo ngi lay balaax la balaax. jërëjëf jàlle suñu papa Mor Fadam bi nga xam ne yàlla jëlee na ko fii. yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin te boole ci yool bi. te yan témoignage nga ñu mën a defal ci moom yi nga sekk ak moom. Mor daal suñu garaala la ku baax dem na ku baax dem na ku bëggan at ku bëggan jaamu yàlla ku discipline ku yaru ku teey dem na wax dëgg yàlla Mor. man fi ma tàggoog moom barki démb woo na ma ca kajoor fu ma dëkk bi ma woo mu ni ma saal man koor gi ba léegi damaa feebar koor gi sax damaa bañ bañ lu woor mais mënuma woon mais nag weeru koor bu jàllee bu la rawee duutoo ko dabu man ko loolu dëgg la mu ni ma ñaanal ma ma ni ko dinaa wax sama grand frère bi mu xoolal la sa yaram mu ni ma noo yow ñaanal ma ma ci jóge jógee Kébémer ñëw fii bi ma ñëwee toog nañ waxtaan ci loolu maak moom mu ni ma man damaa feebar dama doon bañ bañ rek mais wéruma tey ma xëy liggéey si biig biig si guddi noo bokk toog ba minuit six fii ci grand place nu bokk kër yi ci suba bi ma xëyee jaar naa fi mais dugguma ci néeg bi bi ma liggéey ba wàcc deux heures bi ma ñëwee jabar ji séddale añ waaxu naa dugg ci néeg bi fëgg ko fekk mu toog ci sijaa dem jublu penku ñii nag nee na jàpp na xaw ma nag fekk na julli naam bi mais fekk naa ko kurus gii mu yor ko ci loxoom sëngéem nii teg nii benn loxo bi ci lal bi ma ni ko champion yaa ngi daanu de bi ma ko waxee ñaari yoon yënguwul ma ñëw fëgg ko yëngul ma laal ko rek mu wàcc sama kaw ma parafitoo ni doom ji jàppal ma nu jàpp ko fexe ba yéege ko ci lal bi bi ñu koy yéegee ci lal bi ma gis doom ji changé comme tudde Pa Jaw mi ma ne ko dawal may ma ndox dawal may ma ndox daa xam léegi booba jigéen ñaa ngi toog ñaan ma ñëwal de ñu ngi may woo naan saal kaay añ kaay añ ma daal di ma daal ma daal di ni cell rek bi mu tëddee ci sama tànk la tëdd mu xiqi ñaari yoon bi mu xiqee la dem ci laa ko daal di defar kanam gi bi ma defaree kanamam jigéen ñi ma gis faama daal di tëb bàyyi bool bi ndax doom ki ma daal delloo bunt bi tëj ko ci laa yónnee ngay ak Pape Seck ñu ñëw fexe ba ñëw ak Maawa Diouf compagnie ma fexe ban génne ko mais kurus gii daal ci loxoom lañ ko nangu bi muy dox kurus gaa ngi nii te mi ngi toog ci sajaade toog fi suuf waaw dëgg yàlla ku baax dem na ku yaru dem na ku kenn xamalul dara léppam da koo nëbb léppam Mor Fadam da koo nëbb yaayam ji bañ na ko ba li muy sonn sonn bi ma téye bunt bi puus na bunt bi ba ñëw naa ma saal baal ñu yóbbu ko hôpital man ko xaaral Pape Seck ñëw parce que man xam naa li xew xam naa yi dem na te léegi añ baa ngi tege mais wax dëgg bañ na ko ba dindi saafara ni ma jox ko Mor mais booba c'est trop tard man xam naa yi dem na mais ku dëddu àdduna dem na ñun ñii de def nañ ci kër gi fanweeri at mosunoo saaga mosunoo merloo mosunoo wax dara ay jabaram sax am nañ coow fii yaayam man lay woosi saal kaay wax ci arki alxuraan loolu témoin naa ko fii moor du waxal kenn dara doom yi buñ doon histoire sax moor xamul jabar yi buñ doon coow jar xamul moor daal moorum boppam la ku baax dem na ku baax dem na yal na ko yàlla xare àjjana li mu wane di exemple la jullit bu yor kurusam julli tisbaar door a wane ginnaaw ah loolu sant yàlla la sant yàlla lii moor am man maa ngi ñaar yàlla na ma ko yàlla may yàlla na ma ko saa borom may moo fa dem yàlla bu ko cat jiitu ku baax ku laa biir dem la ñu ngi koy jaale sëriñam bii nag sëñ jaw xaritam la yàgg nañ lool kii li mu xamal Mor Fadam kenn xamalu ko fi yàgg nañ moom moom jaar nañ fu ne man kër baa ñëwee moor Fadam ak saa Kajoor bi ñoo ma ko sante mais jaw mii ku sonn ci Mor Fadam la kon jaw ñi ngi lay jaale Mor ñi ngi lay jaale Mor sa dem la dee ko dolli ñaanal nag barki démb laa lay wax nii bi may ñëw laa jox daal man ko mor jaw ga woo nga ko ci feebar bi nii de nu toog fii démb rek démb démb noo toog ci bant bi man ko waaw suñ jaw lu mu la wax mu ni ma dinaa ko woo barki alxuraan lii la ma wax démb ci bëccëg xaw ma nag woo na la xaw ma woowu la mais ku la doy loola woon ku la gëmal la ku la joxoon sa wàccuwaay la waaw dëgg yàlla lii nag la yàlla dogal ànd ngeen ci jàmm ak salaam ba yàlla jël ko yàlla na la fi yàlla yàggal nga yàgg koo ñaanal Ah, waaw sant nan la gërëm nan la sa digg ak moor dara ñaawu ci kon sant